الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل إلهي مسكني تبابات مثل اسمها بجاه خير من عباد واجعل إلهي مسكني تبابات مثل اسمها بجاه خير من عباد وصليا علي أفضل صلاة محمد وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أزارا فنجه واغفر له أزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقونا أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة والاستسلاما فكل من أزازنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أزا جميع العالمين وارزق فيهم غزايا يا رب الأمين واجعل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية شيخ أحمد الرفاعي ومش أحمد الفاضل سري أحمد مباكي ومسري مصطفى ومش أحمد سري بشير مباكي ومسري شيخ شرم ومش أحمد الأمين أكبر لهم كلفة يجي خملين في تاو ñu jottali ñu ko ci ñi nga xam ne ñooy ñooñ liggéey bi te teew fi teg ko ci loxol professeur Lamine Gueye ak professeur Mor Faye Serigne Makhtar ak mboolem borom xam-xam yi nga xam ñoo fi teew ñu àggaleel ñu ko ci ñoom di nuyu itam ndongo yi nga xam ne ñoo fi teew tey jii war a tàmbali seenum njàng fii ci barab tedd waaye nag mu jaar ci mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci barabu liggéeyukaay bii di kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon di waajal liggéey bi bi mu yegsee itam ñoo yor liggéey boobu bii nuyoo boobu nag ak ñaan yooyu ak cant gi dafa jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér nga xam ne liggéey bii moo ko yëkkati mu yitteem amut beneen yitte bu moom mu ñor ko lool waxtu wu nekk itam mu di ko toppal boppam mu ne nañ ñëw teewal ko ci jataay bi indil ko nuyoo boobu yi waaye dalal nag ñi nga xam ne ñoo ñëw ci barab bi tam itam seen barab ñoom bu ñu leen ne dal leen jàmm mën nañoo taxaw fee itam ñoom ñu ne dal leen jàmm mu ñu fi teew ñëpp ndax ñoom moom liggéey bi ñu koy def ci weeru koor wu tedd di weeru alxuraanul karim di weeru sëriñ bi di weeru borom bi subhaanahu wa taala moom moom moom moom weer yëpp waaye mel ne dafa mel ne daf ko cee tànn chahru ramadan ci nga xam ne ci la alquranul karim wàcc chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan di weer woo xam ne itam ci la laylatul qadri nekk wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr kon weer wu màgg la waaye ñu koy def ci fukki fan daanaka yu mujj yi mënees na ko wax nga xam ne njëlbeen gi yërmande la digg bi ak njëgal la waaye mujj gi atqun min annaar yàlla na ko defal ñu itam ci dëkk bu am solo bi, dëkk bu tedd di tuubal mahrusa dëkk boo xam borom daf koo sosoon rek ngir defar nit ñi ñu texe àdduna texe àllaaxira waaye nag muy xam-xam واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد وتعليم ومسكن التصويب وتفهيم kon ñu daje ci jataay boo xam ne jataayub xam-xam la di ko defee ci dëkkub xam-xam waaye di ko defee nag ci weeru xam-xam ndax alquranul karim mooy ndam bi xam-xam yi te weer bii mooy weeru alquranul karim sëriñ bi ne kon mi ngi leen di dalal jàmm di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal dinu soññ itam ci liggéey bi nu gën a laxasaayu gën a feddali waxtu wone sunu yitte ak sunu pësteef ci liggéey bu màgg bii Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu dafa joxoon yitte lool xam-xam léppam ci xam-xam la ko tegoon waaye loolu daf koo donne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon ngir mu jàngale jàngale nag lépp a ngi ci biir kuy jàngale da ngay jàngal nit ki lépp loo xam ne dana tax mu mën a texe àdduna texe àllaaxira kon loolu moo fi indi woon sallallahu alayhi wa sallam cheikhuna alxadim radiallahu anhu ba woote bi bi ak njàngale ma jaaree fa mu war a jaar jaar ci taabiina wa taabii taabiin ba yegsi ci moom mu ne cas liggéey boobu le ne moom amul beneen yitte bu dul rekk xeñtu tànkub ak mborom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yeesal nak li nga xamne mo fi mom la fi indi won bil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al lxarra wa in ahmadu mu don lo xamne kon fa sallallahu alayhi wa sallam jaaroon rek la jaar diko top aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu maa allasi qafuhu shughli wa hajati shughli wa hajati ñaari baat yoyu defena ne tegtale ne yitte ji nga xam ne sëriñ bi jox na ko topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak am njàngaleem alquranul di xam-xam wax ko léegi sëriñ bi fonkoon ko lool waaye ñaanoon dëkk bii mu doon dëkkub xam-xam dëkkub jàng ak jàngale dëkkub leer dëkk boo xam ne nit ci xam wala xam wan leer gi nga xam ne tax mu xam borom bi tax mu subhanahu wa taala mboolem nag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ ci loolu la leen yaroon ci loolu la leen tàggatoon muy ñi àndoon ak moom di wut yàlla jabatu boppam gi ak képp kum foo ko xam ne daa nga ko déggal wala nga mas koo gis ci won woowu yoon woowu la la doon woo te mooy rek mooy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu ci xam la mën a tegu waaye mu bokk ci ay mën nañ ko tudde naal wala ay sémbu wala ay taxawaay ay taxaw yoo xam ne taxawaloon na ko bokk ci muy jàngukaay bii nga xam ne dafa ñaanoon borom bi subhanahu wa taala mu defal ko jàngukaay boo xam ne fépp fu nit bëgg a jànge xam-xam bu am njariñ da ngay mën a ñëw jànge ko fa boo noppee na nga man koo yaatalaat ba bindee fi ak jàmm yàlla yépp man cee jot képp ku mas a yar wala mu defar la dalay yabal fi barab wala nga dellu fa nga bàyyi ko woon di fa dafa dox doxin ba ci dëkkam bu sell bii mboolem ñi nga xamne ñoko massa ko wuti itam kenn ku ci ne jéego yoyé ci nga nekkon taxaway bobé mom nga taxawal tàmbale ci Cheikh Moustapha al Karim jaar ci Cheikh mohammed al Fadil Cheikh abdullah al Ahad Cheikh Abdoul Qadir Cheikh shaib ba ci ñi nga xamne Cheikh Cheikh salih ba ci sëtam yi nga xamne ño ñoo toppaat ci seen wajur yoyé kenn ku nekk ci ñom Cheikh mohammed Lamine Cheikh Sidel mukhtar ba ci Cheikh mohammed al muntakhami waaye njabootam gi nga xam ne jotuñu woon a toogee toogaayam bi ku ci nekk itam loolee rek ci nga nekkoon loolee rek ku ci ne loolee nga ca nga nekkoon waaye ñi nga xam ne wax naa ko sànq dañoo àndoon ak moom di wut yàlla ñoom itam ku ne mu defar la fa nga nekkoon nga nekkoon bokkam yi maam Thierno Ibrahim maam Cheikh Anta euh, Serigne Afia bu ma ñoom ñëpp Cheikh Massamba ñoom ñëpp ku ci ne ci lool yi nga nekkoon ak mboolem rek ñi nga xam ne ñooy cheikh yi. muy rek yar nit ñi defar leen waaye am baydu sëriñ bi bind wax ne sunu borom defal na ma ab jàngukaay bil mustafa lii banal qudduusu madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu jàngukaay boobu yi nag dañoo wax ne du rek loo xam ne day yem ci diggante ñeenti miir ñu mën ne fii la tàmbalee fii la yem waaye loolu mën xëj lay doon walla système wala modèle éducatif boo xam ne bu cheikhul alxadim radiallahu anhu la te mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mépp njàng mu am njëriñ ku ne xam na ne nag koo xam-xam ci diine alquranul karim ngay tàmbalee ndax moom mooy mooy mooy mooy xol bi mooy digg bi mooy njëlbeen gi moo tax ku ne xam na ne li sëriñ sunu borom defal sëriñ bi ci alquran moom moom kéemaan rek des ko mën a tudde wala mayug yàlla doy na ci misaal dëkk bii defe naa ne weer bii liñ fiy jàng ci alxuraanul karim ñemees naa wax ne amul feneen fu ñuy jànge lu toll noonu ci alxuraan ndax daara yi nit ñi kenn ku ci nekk sa waqf bu al bu weer wi ñëwee danga ko yokk wala nga sax nga nga yokk ay yoon yoon yoon waaye guddi bu jotee xoolal li ngay dégg ci ay fu ñuy jànge alxuraanul karim di ko naafila ñi toog seen biir kër sax alxuraan la ñuy naafila ñi amul jotug wala ca wartaag ak dem ca jàkka ya wala ca jumaa yi ña ngi koy def ci seen biir ak dëkk bi ni mu toll loolu xooloon weeru koor ñaata kaamil lañ fi wàcc bokkut ak daari kaamil yi nga xam ne moom jamono sëriñ bi ba tey mi ngi def li muy def waaye yemul ci dëkk bi ci mbooleem fa njabootug bi nekk fa mbooleem dëkk boo xam ne dëkk njabootug sëriñ baa ne ni ñu dundalee alquran ni ñu dundalee weeru al weeru koor wii ci alquran noonu lañ ko fay dundale ba ca ndakaaru gis ngeen foo dem ci Sénégal ba bitim réew kër sëriñ Touba yi ak njabootu Serigne bi jëfandikoo kon alxuraan moom day mbirum sëriñ bi mu wax ne maa ko moom ci anam goo xam ne nit dana ci moome mbir mu lew ko moomee naa ne alxuraan malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa tamanan wa li yudimu nafaqa wax ne buñ doon lu ñuy saraxe sarax nañ ma ko bu doon lu ñuy jaay jënd naa ko bu doon lu ñuy maye may na ma ko loolu ku ne mën nga ko firndeel waaye alhamdulilah tout yi nga xam ne bu njëkk nit sori lool ci at soog a mokkal alquran sonn ca lool waaye léegi gis ngeen alhamdulilah moo cheikh mahamadul muntaqa yàlla na fi yàgg te wér bi mu ñëwee jël liggéey bi nga xam ne sosu ko da cee sof ni ma ko waxee da ko fekkoon mu jógee ci sëñ ba jaar fi mu war jaar ba ci ne amul beneen yitte bu liggéey bi bi mu ko tàmbalee nag ci ñu toog fii ma di leen sant ci turu bi kenn ku nekk da laxasaayu fa nga nga fa ñu waajal ko lii nga xam ne manhaj lañ koy tudde tarbawi islaami wala muridi yi wala boo nee manhaj manhaj tarbawi islaami yi say muridi yaa ngi ci biir boo nee manhaj tarbawi muridi yi lépp ci lislaam lay dellu mu tàmbalee ci kii dal baasiin ba ca njobaxtan la ni ko sëriñ bi waxe woon ñu tàmbalee nag ci alquranul karim mi ma doon wax te kenn mënta wax li yell ci moom ak ni mu demee ak sëriñ bi damay junj rek daaree alquran ji la sëriñ bi njëkk ay tuut tànk yoo xam ne dafa leen a jëlee fu fasantikoo ci biir yoonu murit ak ci biir réew mi mboolem foo koo xam ñi àndoon ak sëriñ bi ñëpp fu ci ne sëriñ bi dugal fa ab lim lu mu néew néew ñu ñëw ñëw fii ci daara ji waaye am ñoo xam ne itam rek dañ ne képp koo xam ne rek am nga yéene bokk ci na nga xam ne ñëpp a ko bokk ñu ubbi woon lu ñuy wax plateforme ñi bind woon matoon na juróom-ñetti junniy nit ñu jël ci loo xam ne rek moom la daara ji àttandaguñ daari alxuraan jooju nag bi ñuy tàmbali juróom-ñetti téeméeri gone lañ tàmbale woon waaye am na ci ñoo xam ne indiale woon nañ fi àlluwa ju xaw a sori tuuti am ñu in tàmbali woon tuuti ñëw fi waaye ñi ci ëpp moom fii la ñu dale baasin miim bismillahi rahmaani rahim Cheikh Mahamadul Muntaqa dalal leen waaye dafa mu doon lu am solo itam ndax àlluwa jëm leen dalale sëñ Mahamaduloo Maxtaar moom Cheikh Maxtaar Binta moom la ci sëriñ bi dalaloon nga xam ne mbindum sëriñ bi la woon loolu wane ne kon sëriñ bi ab jàngalekat la woon sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne innama bu'ithtu mualliman sëriñ bi doon ci moom loolu moo daan dalal nit ñi baax di leen jàngal ñooñee fi dale woon nag fii mu nekk nii macha allah am na ci ñoo xam ne romb na ñaar fukki xisb ñuy nuyu Cheikh Amadou Fadil moom Serigne Guédé mi nga xam ne mooy jiite daara jooju di ci def taxawaay bu rafet ak soxna Nafisatu Bousso nga xam ne moom itam moo jiite xismul banaat maanaam tuttànk jigéen yi moo jiite jàngukaay bopp yi mu doon daara joo xam ne macha allah wax dëgg yàlla ñi baaxoo xam daara xam nañ ne nit ki bu dalee at mi bu ci amee bu àggee tabaaraka wala mu weesu ko tuuti ñu ne jàmbaar la waaye fi mu ne am na fi ñoo xam ne bi at mi daata matee romb na ñaar fukki xisb te li ñuy jàng dañ koy jàng di ko mokkal di ko jàng niñ ko war a jàngee ndax Cheikh Ahmadul Muntaqa ci soññam dafa wax ne nañ koy jàng niñ ko war a jàngee ndax mën naa ne ku fi dale moom na ko yóbbaale koo xam ne dafay ñëwoon te indaale wu ko na ko dabu noonu la daal di doxee ñoom gone yooyu yi fii lañ ne ñu ngi leen di toppatoo ci wàllu gépp di leen yaritam yarub diine ngir ëllëg ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy tawu liggéey bii sëriñ bi ne ko tawu moom laal suuf ñu ngi leen di toppatoo ci wàllu wér gu leen toppatoo ci wàllu ñaari médecin ngi fi yoo xam ne fi lañ féete dongo yi rek ak ñu nekk ci daara ji ñoo tax ñu ñu nekk fi waaye naka noonu tam wàllu wàllu lépp lu aju rek ci luy tax doomu aadama mën a tedd man a dund dund bi nga xam ne wala xadd karam naa ba bani aadama jooji ak fonk gi borom bi subhanahu wa taala fonk doomu adama noon yi ñu ngi sàmmante moom ci kem kàttan kon daara jooji sëñ Mouhamadou Moustapha Diom daal moom itam mooy mu mudiru dirasaat barki démb indil na ma taqrir bu jógee Cheikh Amadou Fadil Cheikh ma ko jox waaye man dama cee yéem wax dëgg yàlla gis ne tànk yi jigéen ñi itam alhamdulilah booy seet ci àllo yi ñoo ñoo ñoo moom tuwaarkàlla ñoom itam ñu ngi góorgóorlu ki fi njëkk a wattu jigéen la waaye nag dafay indaale woon àlliwoo waaye alhamdulilah fii la ko mottali am na fi ñeneen ñoo xam ne ñoom itam indaale woon nañu fi àddu ba sori lañ naka noonu am na majalis mooy xam-xamu diine bi nga xam ne nag moonu sàmmal xam lislaam ba mu yegg si fii cheikhuna al khadim radiyallahu anhu njàng moom yi la daan jàngale moom laan digle ñu ko jàng mitam borom xam-xam yi nekk ci biir mi lañ mu bu am solo bo xam ne sëriñ bakk abdourahman ak ñi mu ko àndal ñi def di def bu am solo mbooloo nga fa moom it am na ñi ñi mokkaloon alquran so a ñëw ñoom fa la ñuy jàngee ci daara ji waaye mbooloo mu bari di jóge ci di di fi jàng si ñoom itam tubaarakalla am na ni ko sëñ maxtaar waxe sànq am at moo xam jot nañ ko fay jàngee bañ waaye alhamdulilah ñu jàng mboolem njàngit yi nga xam ne moom lañ moom njàng téere yi ñu daan jàng bu njëkk ñu di ko jàng nañ ko daan jàngee di ko mokkal waaye di jàng meneen njàng boo xam ne nag jamono laaj na ko mu doon ay jumtukaay yoo xam ne ëllëg danañ mën a doon ñuy taxawal lislaam ñu yaatal lislaam waaye ñoo xam ne gépp wàll ndax bu ñu nee lislaam mooy àdduna gépp wàll boo xam ne nituk diine da koo soxla ñu di leen ca waajal ñoom itam tabaarakallaahu ñu ngay dox liggéey bu am solo li ñu tuddee njàng mu kawe mi nga xam ne mën nañu wax ne nag tey moo tax ñu tase fi loolu bañ tàmbalee moom itam kulliyat dirasatil islamiyya wa luxal arabiyya moom lañ njëkk a tàmbalee itam ñuy jàng la ñuy jàng université ya nekk ci bitim réew waaye nag boole ci suñu yëfi bopp ndax waxtu wu dañuy wax ne ñun duñ ay altoppe xam-xam indi nyepu am ci al alxikmatu daalatul mu'min kenn ku nekk am nga ci wàll woo danga ko war a jël foo ko fekk itam nag xaytu wajadaha axadaha aw axadaha xaytu wajadaha foo fekk xam-xam bu am jëriñ sañ nga ko jël loola moo tax la ñuy jàng ca université yi gën a kawe walla yi gën a yàgg ci àdduna bi te Cheikh Mouhamadul Mountakha tuddoon ko ca kàddoom yu kawe yooyee dañ ko fiy jàng waaye dañ fiy jàng loo xam ne nag mooy sunu mooy Sénégal mooy sunum réew li nga xam ne Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu def na ko ci liggéey ci lislaam taxawaay yu rafet yi nga xam ne amoon na ko ci diine ak ci réew mi ak ci askan wi yooyu dañ ci tàggat gone yi nàmpatal leen ci waaye boroom xam-xam yi ak mag ñi ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal ñoom itam liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci diine def ko ci réew mi def ko ci lislaam gone yi xam ko waaye ñu xam réew mi rek xam Afrique xam àdduna bi nga xam ne daal ëllëg ak si biir bu ñu noppee danañ doon nit ñoo xam ne danañ mën a doon nit yi jamono ji ñuy nekk danañ danañ danañ waajtaay wam laaj yépp danañ ko laaj dañ ko laal boobu docteur Abdoul Ahad Lo moo ko jiite moo ñim ko àndal Serigne Samb Serigne Chamb sa Abdourahman ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk di mbooloo moo xam ne ñu ci ñëpp ci njabootu sëriñ bi lañ moo ne njabootu sëriñ bi mooy mooy mooy mooy waa dëkk bi ak waa réew mi. démb rek am na ay ñetti jàngalekat ay professeurs yu mag yoo xam ne Égypte lañ jógee fi lañ yendu démb tàmbali di jàppale ci njàngale mi ku ne xam ne al Azhar al muy université boo xam ne junniy atam romb na kon ñooñu moom du ñu gan ci yoon bi nun nuy soog a tàmbali kon bu ñu àndeek ñoom danañ ñu mën a won yoon bi danañ ñu mën a teggiloo pakk yu baree bari waaye dana tax nag fa jamono toll ci xam-xam ñun ñu mën a tàmbalee foofu jëm kaw ndax waxtu wane dañuy wax ne duñ tàmbalee ci suuf di yéeg loola mën naa yéex dañu xool fi àddina toll fa ci gën a baax ñu tàmbalee foofu di wut nag ñun luñ ci yokk di yéeg jëm kaw ànd ak fi jamono jëm ñoom itam tàmbali nañ di def liggéey bu am solo nga xam ne ëllëg si biir ki fi génne dana xam diineem bu baax xam lislaam waaye nag dana mën dana mën lépp loo xam ne jamono da ko soxla ci nituk diine mu mën koo taxawe bépp liggéey boo xam ne itam nituk diine da ko war a def taxawe ko cim réewam taxawe ko askanam ñu waajal ko waajtaay woowulee boobu itam moom mi ngi fi waaye ku ne xam na wér-gi-yaram ni nga xamee ni ni la amee solo yaakaar naa ne kenn du ko nattal ne ci nit ñi waaye ñetti at yi weesu bismillah bismillah soxna Sali ku ne xam ne wàllu yër wàllu wér-gu-yaram moom kenn du ci jërut kenn du ca wax waaye rek al aqlu salim fil jismi salim nit ki bu wérul du mën a ànd ak xelam te bu boobaa du mën a jaamu yàlla na mu waree du mën a liggéey du mën a toppatoo aw askanam du mën a toppatoo boppam moom daal bu amul wér-gu-yaram rek lu bari dafay sooxe Adi yi weesu nag wan ñi ci leneen xam ne nit ki dafa war a sukkandiku ci boppam mooy at yi yàlla fi tam bañ ba jàngukaay bi nga xam ne fi la ñuy jànge wér-gi-yaram moom itam tàmbali na daaw professeur Moussa Badiane ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu doon ay ay ay ay professeur ci wàllu médecine ñoom itam ñoo ko ñoo ko yore di ci taxaw taxawaay bu rafet ne àggale nañ benn at boo xam ne moom itam ci wàllu toppatoo soxna yi ndax ku ne xam na ne fii ci Touba soxna yi allah yar bi am ak ni ñuy dundee buñ sañoon buñ tolloo fenn fi wala doon nañ sàpp loolu buñ tolloo fenn fi seen jigéen di leen toppatoo loolu bàyyi nañ ko xel ci waajtaay yi ba tax na ñoom foofu lañ tàmbalee lépp nag luy wér-gu-yaram ko fi jàng waaye ñoom ci ñoom lañ tàmbalee di fi jàngale njàng mu am solo ñuy jàng médecine waaye di jang diine ndax fii daaree lislaam la képp ku fiy jàng da ngay jàng am na sax loo xam ne professeur Badiane wax nañu ko mooy bi ñuy nattu di laaj yan jafe-jafe lañu am ci njàng mi lan moo leen gën a neex ci lan lañ ci gën a daanaka bëgg mën naa ko wax wala boog lu leen ci yitteel bokk na ci li ñu wax mooy njàngum diine mi wala jangum diine bi la wax te dañ leen koy jàngal ci wolof li nit ki mënta ñu xam tam képp ku fi jànge ak mana mën a jàng da ngay jàng diine ndax sëriñ bi léppam diine la waaye diine mooy lépp luy defar nit mu texe àdduna texe àllaaxira kon njàng moomu itam tàmbali na am na fi nag lu ñu war a tàmbali tey incha allah taala moo tax ñu daje fi loolu kon da xam naa professeur yi day ñëw ci leeral waaye ñeenti jàngukaay yu bees la ci noonu ñuy eh? waaw ok am na fi itam beneen bànqaas boo xam ne bu am solo ci liggéey bi la mooy niñ tuddee eh, njàngum Tuubaa ndax ku ne xam ne dëkk bi dëkkub xam-xam la dëkku jàngukaay la jàngukaay yi bari fi lool waye nak l'islam dafa nosu dafa organiser wu lépp luñ nosul rek du melna wara mel bokku na ci li serigne bi digle ñu taxawal ko fi moy idara bu mag bo xamne serigne muntaka Jatara serigne Cheikh mbake ñang serigne cheikh ona Abdoul Wadoud ak ñang ko àndal ñoo fa nek nga xamne dañu xol école yi nek ci dëkk bi ñu xolaat ben bu ci ne lañ jàpp ne manki na ca ci liggey ba ñu yokk ko ca waye la ci jitu nak moy jàngal leen siratu cheikh al khadim radiyallahu anhu ndax kat dëkk bi ku fi juddoo màggee fi war nga xam sëñ bi te sëriñ bi ñëpp ko war a xam waaye rawate nañu am tawfiix nag dëkke fii wala ñu ñëw fi di fi jàng si loolu tax na dugal nañ ko ci te loola mooy lislaam rek waaye di leen jàngal itam lislaam ci yi nga xam ne duñ jàngukaay yoo xam ne xëy na yeneen la ñuy jàngale mooy jàngukaay yi tolloog li ñu tuddee école moderne wala école classique ñu dugal fa njàngum lislaam mu wér a wér waaye di ko sëriñ bi jàngale waaye di leen jàngal tasawuf ndax sëriñ bi ci biir lislaam la nekk waaye almurid ci biir tasawuf la nekk lan mooy soufisme ëllëg ak si biir ñu xam ne ñoom ay suuf yanke lañ war a doon moom lañ doon dundiinu suuf yanke lañ war a dund ndax ay taalibe sëriñ bi lañ te ay murid lañ te murid ñetteelu ponk bañ waxoon ca lislaam moo ne mooy al imaanu wal islaam wal ixsaanu ixsaan boobu yi fi la tasawuf dugg te ñett yooyu benn mënu cee ñàkk benn mënu cee dem bàyyi borom ba waaye ñu di leen jàngal itam ak ak ab yar ndax ku ne xam na ne foo dégg ak tarbiya wa taalim la ñu boole waaye nag li ëpp ci école yi moom mën nañu wax ne rek taalim la wala rek dañuy sol rek gone gi xam-xam te sëriñ bi nee na xam-xam bu ànd takub yar yàlla nañ ci yàlla musal wa kathratul ilmi bi gayri adabi wala bi duni adabi jaalibatun ilal ada wa taabi te itam xam-xam boo xam ne du tax nit ki xam yàlla ba man koo ragal sëriñ bi nee na loola du xam-xam inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal funun donte jàng na ba am diplôme ya gën a kawe kooka sëriñ bi nee na du borom xam-xam moo tax ñu dugal ci njàng mi njàngum xam-xamum diine njàngum tawxid fiq tasawuf te mooy al iman wal islaam wal ihsaan waaye mu xam sëriñ bi nga xam ne moo sosoon dëkkam bii lu taxoon mu sos ko wala ci lim nekkoon te loolu la njariñ la loo xam ne ñëpp dañ ko war a xam mooy dara génn ci njàngaleem yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam sallam dara génn ci lislaam joo xam ne mooy lislaam ju da ju sell joo xam dara kooju ko kon loolu mooy ci tënk ngir bañ a guddal ni nga xam ni la njàng mi tëddee waaye di jaajëfalaat cheikh ko ñaanal mu yàgg fi te wér ndax lii ku yàlla tawféexal nga man cee teg sab loxo kala ca boole mënoo ko fay waaye di ko jaajëfalal mi nga xam ne ba mu yëkkatee kàddoom yi ya ñoo ni ma ko waxee sànq kenn ku nekk fa ma ne mu jàpp fa ba ñu taxawal lii nga xam ne bu fekkoon ne ni waajal ab liggéey baaxoo demee lay lay lay demee dana jël at yu baree baree baree bari waaye dana jël koppar yu bari yu àddina di tudd te ba ñu tàmbalee ba ni liggéey bi taxawee ñëpp dañoo jaayante nanguwuñ benn benn benn koppar boo xam ne day jóge ci li murid yi yet sëñ bi di duggaat ci ñoom ndax ni ko ñooñee indee lañ ko war a indee te léegéeyal sëriñ bi kenn ku nekk fa ngay fa nga mane ngay jàppe ñi yàlla taw taw fee sax laa koy wax ñu bokk ci wàllu waaru xam-xam def nañ ci seen kéem kàttan waaye ñi yàlla taw fee itam ñu nekk ci wàllu xalaat yu rafet def nañ ay nangami téeméeri téeméeri nit ñoo bokkoon ci liggéey bi ñii daanañ teew ñii daanañ bind di yónnee ñii dañ daan def sax ay audio di yónnee seen i xalaat ñii di woote di wax waaye lépp lañ doon jàpp di ko bind ngir mu waajtaay wi ñu mën cee ko cee boole ba mu mel na mu war a mel. waaye ñi nga xam ne itam yàlla dafa leen a jox ay wërsëg ñu taxaw fi taxawaay bu bu rëy loo fi gis rek njabootu sëriñ bee ko def ka am dërëm joxe na ka am ñaar dërëm joxe na daayira yi di dajale di yët sëriñ bi nit ñi di ñëwal seen bopp di ko yët moom itam mu ne lu lépp lu ñëw fii la ko jënd si waaye ñi nga xam ne itam borom mi doole lañ ñoom itam ñu ñëw tobbi fi ay sas gis ngeen li ngeen di jàkkaarloo yépp ay sas la yoo xam ne mbooloo ñoo waxoon sëriñ bi ne ko daaree alxuraan ji caabi lañ lay jëbbal defe naa ko gis liggéey bii xam ne liggéeyu pëseef la liggéeyu tawfeex la waaye dërëm bu nit mas a jox sëriñ bi boo duggee ci bunt ba ba ngay yegg si fii da nga xam ne foo fii la ko sëriñ bi fii la sëriñ bi jëmale ba ci mbooloom Touba ca kanam ñu ngi nuyu sëriñ Saalixu Jaxate mi leen fi teewal teewal fi sëriñ Habibullah ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom itam bâtiment bee ngeen di seen ñoo ko def muy seen wàll noonu lañ ko taxawalee ba liggéey bi yegg si fii waaye waa xisbu tarqiya ñoom it gis ngeen bu ngeen di dugg si ñoom da waxtoo ne damay wax ne bi ñuy waaj loolu moom bokkutoon ci fi suñu xel àggoon muy daari alxo daara këru xasaay bi waaye gis ngeen macha allah bâtiment bi moom itam noonu nii la demee Cheikh um, Sëriñ Hamdi Khadi moom it gis ngeen moom mii rewoon mbir bi waaye kër gii ñu tàmbaliwaat muy këru alxuraanul karim moom itam moo ko fi moo ko fi def kon lépp daal noonu nii li nga xam ne la noonu la liggéey bi tëddee kon ku fi dugaloon sa dërëm boo fi duggee wala nga gis ko danga xam ne day sëriñ bi nga ko joxoon moom def na ko fi waye ñi sasu woon ñoom itam ne sëriñ bi daaree alxuraan lañ lay defal bu ñëwé fé dañ xamné lañ fa def mom yéména amna fi itam nak bërepp bo xamné centre de formation professionnelle lañ ko tuddé nga xamné dañu bëgg difa tagat to tuutànk ci walu métier ndax sëriñ bi naka jek xam-xam ak jëfe lay wax al ilmu wal amalu jawharani li khayri ya daareeni yajlubaani al ilmu wal amalu bima wal amalu bil ma'lum waaye xam-xam boo ko xasee di jàng métier daa bokk ci jàng xam-xam kon ku jàng xam-xam boo xam ne ci ngay xamee yàlla man koo topp man koo jaamu man koo ragal waaye jàng xam-xam boo xam ne ci ngay amee métier moo xam ne ci ngay mën a daane sa doole ba mën a yor sa bopp mën a teral sa bopp teral sa njaboot teral say bokk mën a jëf ci yoonu yàlla loolu tam alaamul bil maalum la moo tax ñu def fi centre de formation professionnelle boo xam ne eh, ndaw ñi génn ci daara alxuraan ji wala daara mën a doon ci dëkk bi wala ci réew mi te bëgg a tàggatu ci métier mën nañoo ñëw tàggatu fa waaye ndaw ñi xam ne dañoo jàng xam-xam ba sori ne man kat jàng naa ba xam naa sama diine waaye damaa bëggaat métier mën nañoo ñëw jànge fa waaye ñu ne ci dëkk bi wala ci réew mi te yàlla dogal jotuñu woon a jàng jaar ci menn njàng jotuñu woon a jaar ci menn njàng waaye war nañoo am métier moo xam ne ba tey njàng lay doon ndax al ilmu rek la sëriñ bi wax wala amalu bil maalum li xayri ya daareeni yajulbaani ñooñu tam mën nañoo ñëw sàkku fi ay ay ay yoo xam ne dañ koy dañ koy jëfandikoo ñu tàmbalee nag ci métier yi nga xam ne moom la ñu soxla rek boo xooloon ci de fii ñu toog rek mais bu métier moo xam ne def nañ ko fi ku bëgg a tàggatu da mën a ñëw tàggatu ci foofu ci centre de formation professionnelle bi moom des na tuuti waaye moom itam incha allah dana bokk ci liggéey bi kon daal li ma ko waxee woon mën xëj la moo tax fii ñu tuddee ko mu jàmm wala complexe ndax lem njàng mu am njariñ ci fi ci xalaat toll fi mu nekk nii ñu ngi ko fiy jàngalee waaye nag di fi yare yar bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu doon yare nam doon tàggate te noonu mooy la li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi woon kon ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa ñi ngi dalal gan ñi di leen sant di leen gërëm ndax gan amu fi seen kër ngeen ñëw waaye di sàkku ñu ñaanal ko mu yàgg fi di ñaan suñu borom nangul nu suñu koor may nu ñu teewekaat yu bari te mu nangul nu suñu jaamu yàlla te may nu ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy taw liggéeyu Cheikhul Khadim bi radiyallahu anhu ndax wóor nañu du laal suuf kon yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy taw ba fa soob borom bi subhanahu wa taala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته